daaray jigéen ñi daaray jigéen ñi daaray jigéen ñi émission la bu leen rajo Manoore FM di defal 89 point 4 manoore point net ngeen ci ànd ak seen xarit seen soppe yaa Seyda Hawa Ly أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla di ko sant moom buur bi subhaanahu wa taala ndax moom moo yeyoo cant di sàkku ndimbal ci moom borom bi waaye di sàkku njéggal ci moom di ko ñaan mu jéggal ñu ñu ngi musu ci yàlla ci suñu bépp ay bakkan ak ci suñuy ñaawteefu jëf di xam ne képp ku yàlla jubal amul kenn ku ko mën a réeral waaye képp ku yàlla seetaan tamit ba nga réer amul kenn ku la mën a jubal ñi ngi seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul yàlla waaye ñi ngi seede ni muhammad ndawal yàlla la yàlla moo ko yónnee amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fekk képp ku nekk fu mu toog ñu daal di koy ñaanal jàmm yàlla yërmandem ak barkeem yàlla na wàcc ci moom ngeen àndaat ak seen mbokk seen xarit seen Seyda Hawa Ly ci émission bu muy def chaque aljuma nekk fii ci Manoore FM daaray jigéen ñi ñu ngi nuyu mbokk rajo bi yépp di nuyu mbokk auditeurs yeeg mbokk auditrices yépp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ñaanal yàlla di leen wax ni gis nañ téléphone yépp ak apprécier ak apprécier bi ngeen di apprécier émission bi ak bëgg gi ngeen ko bëgg ñu ngi leen ci ñaanal yàlla yàlla yàlla may ñu ci lépp lu ñu dégg rek dañu xam ne ci yàlla la jóge subhanahu wa taala waaye tamit ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ni tamit yaa ngi ànd ak ñun chaque aljuma ci heure bi ànd ak ñun ci daara yu jigéen ñi manoore fm point net ñu ñëwaat ak yéen ci suñu waxtaan bi ñu doon am ak yéen chaque aljuma tey nag ñu indil leen ñaari mawdo yi nga xamante ni am na importance torop parce que ñu bëri jàpp nañ shahru ramadan moom jàll na jeex na tàkk amatul lenn lenn lenn luñ lu ci des képp ku doon def lu baax na nga ko arrêté képp koo xamante ni tamit lépp lu waaye doon def rek instant bi arrêté na ko ci lu baax parce que dañ doon jaamu weer bi ñi nga xamante ni ni dañ doon jaamu weer bi weer bi moo leen taxoon jóg waaye nag nañu xam ne man kaana yaabudu chahru ramadan moom faqad fa inna qad man kaana yaabudu chahru ramadan fa inna chahru ramadan qad mada wa man kaana yaabudu allah fa inna allah xayyun laa yamuut képp ku nekkoon di jaamu weeru koor xamal ni weeru koor passé na jeex na waaye képp ku jaamu yàlla tax a jóg képp kuy jaamu yàlla xamal ni yàlla moom kuy dund la te du mës a dee kon nag nañ bàyyi xel ci bu baax xam ni tey thème boobu la ñu indi woon mooy xaalu naa ba'da ramadan suñu suñu xaal suñu xaal après ramadan lan la suñu xaal après ramadan tey waxtaan boobu lañ leen indi loon ngeen si ànd ak yaa Seyda Hawa indaa leen tamit wadaa an ramadan tàggatoog suñu weeri koor dinañ leen xamal tamit ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo atme ci weeru koor yi ñan ñoo parce que ci examen lañ nekkoon suñ na ci examen lañ nekkoon ci benn weer lañ nekkoon weer boo xamante ni dañoo tëjoon buntu safara yépp ibbi buntu aljana jëngal ñu seytaane weer boo xamante ni promotion la woon jàng alquran bi def lu baax bi woor lan woor bëccëg bi yépp waaye nekk koo xamante ni dañuy taxaw jul guddi gi yépp di julli loolu yépp examen la woon léegi nag examen bi am na ñu ci at ne ñooñu ñan la xaalu naa baax ba ramadan kon mbokk jullit yi mbokk auditeurs yi ak képp képp fu ñuy déglu ak foo mën a nekk rek ñu xamal ne la suñu xaal ba'da ramadan mu ne fa innal muslima xaqan man takuna taqwa allah shi'aaruhu tiilata xaya tiilata umrihi xam nga kat mooy jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy jullit bi nga xamante ni ragal yàlla dafay nekk say màndarga sa giiru dund ragal yàlla dafa war a nekk sa màndarga sa giiru dund amul weer booy toog naan weer bi xaaral mooy weer bi ma wóori weeru promotion la ah te weer bi rek ngay jaamu yàlla beneen weer bi doo jaamu yàlla xaaral weer bi kay weer déedéet nee na dëgg-dëgg jullit mooy ki nga xamante ne ngëm yàlla dafa war a nekk sa màndarga képp ku la gis dafa war a xam ne kii ku gëm yàlla la kii ku ragal yàlla la donte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni woon attaqwa haahuna joxoñ dënnam ne imaan ragal yàlla ci dënn la nekk mais bu yàggee ci dënn rek feeñ ci comportement nit ki am na nit ñoo xam ne boo leen xoolee rek xam ne ñii ñu gëm yàlla lañ ñu ragal yàlla lañ wa libaasuhu nag muddata xayaati waaye ragal yàlla mooy nekk lan moom mooy nekk mbubbam giiru dundam tamit du nekk rek màndargaam waaye day nekk mbubbam boo xamante ni daf koy sol saa su nekk daf koy sol moom lay àndal moom lay toogee moom lay waxee moom lay jëfee moom lay defee lépp te xam ni yàlla daf ñu fi indi pour ñu jaamu ko ci at bi yépp ci weer bi yépp ci lépp ci sa giiru dund la la fi yàlla wàccee pour nga jaamu ko waaye wàccewu la fi pour nga jaamu ko ci weer bi bàyyi ci weer bi wala ci heure bi bàyyi ci heure bi wala ci place bi bàyyi ci beneen place bi ci des déedéet yàlla sa borom sant la loolu kon nag weeru koor jàll na waaye jaamu yàlla du musa jàll mu ne wa innal mu'mina wa innal mu'minal mu'mina saadiq kan mooy jullit ki nga xamante ni saadiqal imaan nag lay wax ki nga xamante ni imaanam dafa dëggu dëggu dëggu dëggu mooy kan man yakunu ilmuhu man yakunu amaluhu bi taat mu ne nag jullit bi gëm yàlla dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ni nii amaluhu jëfam jëfam yu baax lépp dafay nekk ci topp yàlla subhaanahu wa taala yàlla moo la fi wàcce te yàlla def ni ci alquran wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun sadaqallahul azim binduma nit ak jinne lu dul pour lan ñu jaamu ma kon yow sa dund lépp lépp dafa war a nekk lan dafa war a nekk ngëm yàlla dafa war a nekk ragal yàlla yàlla wàccewu la fi pour ngay caaxaan yàlla wàccewu la fi pour ngay foo yàlla wàccewu la pour nga moom sa bopp rek déedéet daf la wàcce pour nga jaamu ko wàcce la pour nga ragal ko nga jox ko gëddam moom borom bi moom moo la bind bu ko neexoon ba ngay def bàkkaar ci jamono boobu mu feeñal la siiwal la tasaara la bu fekkoon kenn ku nekk ci ñun boo defee benn bàkkaar benn béjjén sax kon doomu a yaramu doomu aadama yëpp ay béjjën lay nekk waaye nag nee na jullit dëgg dëgg dëgg kooku moom mooy ki nga xamante ni ragal yàlla dafa war a nekk giiru dundam waaye nekk ci loo xamante ni mbubb ragal yàlla boobu daf koy sol giiru dundam waaye nekkaat tamit jullit bi nga xamante ni dafay dëggu moom mooy kan koo xamante ni jëfam lépp lépp lépp dafay nekk lan topp borom bi subhaanahu wa taala ak moytu lan di moy yàlla subhaanahu wa taala loolu nag dafay nekk ci moom day danan lahu dafay nekk lan xuluq jikko la war a nekk ci moom jikkoom loolu jikko la war a nekk ci moom mais nekkul weeru koor jeex na rek àcc jeex na am ñu doon dañ naan lan weeru koor jeex na ñu doon sol tubay commencé waat sol seeni subay ci xale yi jigéen ñi ñu doon sol jupe yi gàtt commencé nañ ñu doon sol robe yi gàtt yi commencé nañ acca dañ doon jaamu weer bi waaye dañu xam ni weer bi jeex na de waaye yàlla miñ doon jaamu nañ xam ni yàlla mi ñu bind pour ñu jaamu ko nañ xam borom boobu subhaanahu wa taala moom mooy borom kun fayakoon kuy dund la rek du mës a dee waaye jullit dëgg-dëgg tamit dafa war a nekk koo xamante ni dafay góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye waxir san ala taa nekk koo xamante ni dafay xër ci topp yàlla tamit borom bi subhaanahu wa taala kooku mooy kan kooku mooy jullit dëgg-dëgg waaye tamit di entraîner boppam di entraîner bakkanam ci di def lu baax wa tarwidan lin nafsi ala al xayri jullit dëgg-dëgg dafa war a entraîner bakkanam di entraîner boppam ci def lu baax waaye topp sa bakkan rek yal nañ yàlla musal lan moo tax sax ñuy muslu ci suñuy ay bakkan wa min sayyiaati amalina ah danañ yàlla di musal ci suñuy ñaawteefu jëf waaye tan ci suñuy ayu bakkan parce que topp sa bakkan rek mu lay def loolu la neex tey bakkan moo lay def loolu la neex tey bakkan moo lay bàyyi ba heure julli jot mu sàng loola mbaaj ji nga tëdd bakkan moo lay bàyyi ba heure julli jot deux heures doo mës a julli boo bëggee dem si jumaa ji sax sa bakkan ngay topp ba doo topp sa bakkan ba doo def li nga xamante ni nii dafa neex borom bi subhaanahu wa taala mais bu ñuy topp si suñu bakkan parce que suñu bakkan yi jëmee ñu wuñu dara lu dul fan lu dul lu dul safara kese lañu lañu lañu jëmale te yàlla mu ngi naan nañu musal suñu bopp waaye musal suñu njaboot ci safara baad auzu billahi min shaytan rajim ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha annaas walxijaaratu alayha malaa'ika ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون yàlla di wax lan sadaqallahul azim ay yéen gaa ñi gëm alquran musal leen seen bopp te ngeen musal ci seeni njaboot safara waaye di jaamu yàlla rek bàyyi say njaboot yow rek lay yaay julli doo wax xale yi ci kër gi kenn jugal julli yow rek yaay woor doo wax xale yi kenn jugal woor ah doo wax koo gis mu sol lu gàtt si njaboot nga ni njaboot gi njabootu kanaara la njaboot du du njabootu kanaara dañuy tereel dañuy digal suñu bopp waaye tam di ko defal si suñu njaboot di leen musal ci lan ci safara parce que yàlla waxuñu xuu am fusakum rek de musal leen seen bopp rek de déedéet waaye lan la si topp ak seen njaboot bàyyi sa njaboot muy def lu ko neex ah dem fu ko neex surtout si jigéen def lu ko neex wax lu ko neex doo ko yar déedéet yar leen seen doomi ci bëgg diine yar leen seen doom yi si bëgg diine yar leen seen doom yi si bëgg diine bëgg alquran bëgg sunna waaye teg seen tànk yi ci yoon siraatal mustaqim xam ne loolu mooy seen mucc fii si àddina waaye tan loolu mooy seen texe fee ci àllaaxira loolu mooy li nga xamante ne ni bakkan dañ ko war a yar ci topp yàlla ci ragal yàlla ci gëm yàlla bañ koo topp ci lu ko neex bañ koo topp ba mu mus ba mu jëme ñu foo xamante ne ni tey doo ko xam suba duma ko xam mais weeru koor tey bu jeexee xanaa xamuñu ni weer yépp yàllaa ko moom nekkul weeru koor kese la yàlla moom di weer yépp yàllaa ko moom weer yépp kon kon bépp weer bu ne dañ ci war a jaamu yàlla sa giiru dund nga war a jaamu yàlla di tuub di jéggalu di jëm ci sa boroom subhaanahu wa taala xam ni moom moo la sàkk te wax na lu tax mu sàkk la binduma la lu dul nga jaamu ma yow nit ak jinne kon lan nga ci amee weer booy taamu promotion ak boo dul taamu façon xabdan nag hasil mawaasim mu ne bu fekkee ni dafa jeex nag yii nii yépp fay naasaaruha naka lan muccantanam tabaqa mutamassila fi xayaatihi dëgg-dëgg jullit mooy kan bu weeru koor bu weeru koor jàllee nekkul li nga doon def danga koy danga koy baare danga koy puus teg ko fële daal di koy effacé déedéet loolu dafa war a nekk mujjantal ci yow dafay am war a am lan ay jeexintal yoo xamante ni dafa war a nekk ci yow xam ne kat julli bii nga doon def sax waxtu koor gi jeex na wante dund gi jeexul yaa ngi doon saraxe yaa ngi doon natt di saraxe di jàng alquran loolu lépp alquran nekkul weeru koor rek lañ ko war a jàng te tuyaaba ya mu amoon moom la am ba tey kon pourquoi ngay bëgg bàyyi sa bakkan ci weeru koor rek nga koy topp ci ci ci ci gëm yàlla kon yow xam nga ni dañoo war a jaamu yàlla moomu la bind ca weeru koor ba ba nga fekkee ko ba jaamu ko moom moo bind yeneen weer yi pour tamit nga jaamu ko dafa war a nekk la loo xamante ni dafay misaal ci sa dund su waral xajja nekkul loo xamante ni image boo xamante ni dafay descensu ne ci yow waaye wawaaqi am nekkul loo xamante ni dafay tàbbi nag waaye mal muusan loo xamante ni dañ koy laal bu weeru koor gi lan bu weeru koor gi jeexee waa amalan dafay nekk jëf boo xamante ni tamit lu ñuy témoin la waaye tamit lu ñuy yëg la lu ñuy yëg la bu boobaa di nga xam ne man mii ah sama weeru koor gi kat amal na ma njëriñ parce que day dem ba nga xamante ni sax mënatumaa def sax li nga xamante ni nii neexul borom bi subhaanahu wa taala comme na ma ko daan defee ayoxal muslimoon yéen jullit ñi yéen mbokk auditeurs yi ñuy déglu yépp yéen ñi nga xamante ni weeru koor tàgg na leen tàggu na leen ci ay fan yu néew waaye weer wu tedd lool nekk weeru yërmande nekk weeru barke weer boo xamante ni nii lu màggoon la lool lool lool lool lool weer boo xamante ni lu màggoon lool lool lool la nekkoon nañ di woor ci bëccëgu weeru koor sumtum na xaarahu nekkoon gon doon woor ci bëccëgam moom weer bu tedd boobu waaye waqumtum maa tayassara min layli nekkoon ngeen di jug ca la yomb ca leen ca guddeem ya nekkoon ngeen di ko jug di ci taxaw di leen di def ay qiyaamu layli di ñaan seen boroom ci yent bi salaa sallam man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi waaye tamit wa aqbaltum ala tilawati alquran jublu woon ngeen ci weer lan ci di jàng alquran loolu jeexul ba tey de da leen ko jàng waaye wa aksartum min alzikri wa duaa ngeen bëri woon lool ci li ngeen di tudd yàlla ak li ngeen di ñaan yàlla loolu jeexul de bu leen ko jeexal waaye wa tasaddaqtum bil juudi wa saxaa'i nekkoon ngeen tamit di saraxe ci tabe ak lan ak tabe loolu jeexul de bu leen ko jeexal wa taqarrabtum ila rabbikum bi anwaa'i alqurbaat nekkoon ngeen nekk ñu jege seen boroom ci lépp façon yi nga xamante ni nii dañ koy jege ci suñu boroom woor gi nga nekkoon di woor ci bëccëg bi pour jege sa boroom la guddi gi nga nekkoon di ko jub ca la yomb ci yow nga jub julli pour jege woon sa borom la waaye jàng bi nga doon jàng alquran pour jege woon sa borom la waaye zikar yi nga doon bëri tudd yàlla yi nga doon def ak ñaan yi nga doon def di jéggalu loolu lépp pour lan nga def ko pour lan pour nga jege woon sa borom moo tax waaye saraxe bi ngeen doon saraxe ci seen tabe ci seeni alal loolu tamit lan moo taxoon nga def ko pour jege woon sa borom moo tax lan moo tax ñu doon def loolu yépp nag rajaa an sawaabahu nekkoon nan di sàkk waaye di yaakaar lan yàlla fay ñu moom borom bi subhaanahu wa taala waaye wa xawfan iqaabahu nekkoon tamit nekk yoo xamante ni dañoo ragal mbugalu yàlla moo taxoon ñu di ko def kon loolu ñaata rek lañu góorgóorlu kon mbokk yi ñaata lañu góorgóorlu pour def lii lépp nag ci benn weer kon nañ xamante ni loolu ñu doon def ci weer boobu du buñ ko mës a dindi buñ ko mës a bàyyi xam ni boroomu weer boobu mooy boroomu weer yépp yàlla waxul weer bii laa moom beneen weer bii moom ma ko déedéet def ñoo defal weer boobu mu nekk weer bi nga xamante ni macha allah weeru promotion la woon weeru jaamu yàlla waaye weer yépp weeru jaamu yàlla la weeru jéggal fa yàlla la weeru saraxe la weeru def lu baax la waaye weer weeru lan la weeru nekkoon di tere lu bon waaye fa kam min juhudin basaltum naata rek lañu lañu góorgóorlu rek ak coono boo xamante ni nii yulli woon nañ ko ak yaram yi nga xamante ne nii dañ doon sonn lool di jaamu yàlla guddi ndax lan bu toogee sa da ngay gis sa yaram bi sa tànk yi day metti ndax lan taxawaay bi ngay taxaw di julli di jaamu yàlla wa qulubun wajilat ñaata xol moo nekkoon di tooy ñaata xol moo nekkoon lan di di nekk loo xamante ni luy toroxlu la ci yàlla si borom bi subhaanahu wa taala waaye wa akafin rufiat ay ñaata ci ay tënk lañ doon yëkkati yëkkati suñu borom allahumma allahumma allahumma ñaata ñaata yoon lañ ko doon def waaye wa dumuin zurifat ñaata tamit ci ay rangoon ñoo doon tuuru ngir la ñaan borom bi subhanahu wa taala waaye wa abaratin sukkitat lan moo ñaata moo nekkoon ci ay bët yi nga xamante ni ñi ngi taa boo gëmmee rek rangoon bi toog di sotteeku ci lan ngir lan bëgg yàlla allahu akbar subhanahu wa taala waaye lii yépp nag bu ñu yaakaar ne dañ ko def ngir dara ci dañ ko defoon ngir suñu bopp déedéet wax ko laha zalika fi mawsimin mutajira ma allah li nga def noonu lu la war la yow jaam bi loolu moo la war di toroxlu ci yàlla chaque jour di jaamu yàlla chaque jour di xam ni yàlla moo la bind te daf la bind pour nga jaamu ko yàlla daf la fi wàcce fii si àddina pour nga jaamu ko wàcce wula pour nga koy moy wàcce wula pour nga def lu la neex bul def lu la neex ci àddina nga yaakaar ni kenn gisu la bu la kenn gisul yàlla mi ngi lay gis te bis dina ñëw mu ne la xee gisoon naa la de lii nga waxoon ak lii nga defoon lu tax nga def ko lan ngay tontu sa boroom kon nañu xam ni weer bi jeex na waaye jaamu yàlla jeexul waaye ñu ngi ko defoon lan ci mawsim bi nga xamante ni raxma la yërmande la woon ak njéggal ak goreel ci safara kon weer woor weer bi yépp yërmande la weeru koor gi yépp yërmande la amul fukk yuñ ciy xaaj ak yuñ ciy xaajul déedéet weer bi yépp yërmande la weer bi passé lépp yërmande la lépp goreel ci safara la waaye lépp njéggal la ca borom bi subhaanahu wa taala dañu xam ne nag weer bu màgg romb na weer bu tedd romb na weer bi romb na comme lan comme xef a xif xef xib nekk loo xamante ni daf comme jeneer dafa gaaw lool parce que da ngay yegg naan laay ñun de ñaata lañ am tey laay tey am nañ gis weer bi de léegi mu jeex bu ñu xasee ba dugg ci ñaar fukki fan yi rek jeex na ñu xam ne weer bu tedd romb nañu waaye weer boo xamante ni weeru góorgóorlu la woon waaye la nga doon góorgóorlu benn góorgóorlu ko fukk ngalawaay bu weer bi jàllee waaye romb na ak ay ay ay ay ay yiwam ak ay barkeem marra bi xayraatihi wa barakaatihi weer bi romb na ak ay yiwam ak ay barkeem yi nga xam ne dañ naan dañuy dàq koor lan ngay dàq koor dàq nga weeru yërmande waaye dàq nga weeru barke dañu xam ne nag suñu dund am na lu ci passé parce que weer bi heure boobu ñu ko ñu ko weeroon loolu moom jàll na kenn mënatul arrière ginnaaw ba indiwaat weeru koor gi passé déedéet nañ ñaan yàlla kay ñu fekkee yii di ñëw madamin amarina nañ xam ne nag suñu dund am na lu ci passé wa huwa shahidun lana xam ne weeru koor googu weeru koor bi ñuy woor ak koor gi ñuy woor dafay nekk loo xamante ni daf ñuy seedeel awu alayna wala nekk loo xamante ni nii yowmal qiyaam danaan e yàlla diw mii de da doon woor de kon nag ah dama koy rammu bu ko defee koor ñëw rammu la wala julli ñëw ramu la wala sa jëf yu baax yi nga doon def ne dara ñëw ramu la ci waaye koor bokk na ci li nga xamante ni ni dafay ramu boroomam kon nañ leen góorgóorlu ci weeru koor bi bu baax a baax a baax waaye paase na waaye nañ ci gën a góorgóorlu ca lañ doon def benn ñu gën ko yokk xam ne weer bee jàll mais jaamu yàlla jàllul nekkaan loo xamante ne ni lépp luñ doon def ci weeru koor bi ci lu baax nañ ko gën a yokk ñu bañ a nekk loo xamante ne ni dañ koy wàññi waaye loolu loolu nag bu jàllee kenn képp ku ci ñun nag na teg benn fooyam wala mu teg benn kayam jël bigam di bind di xool moom lan la defoon ci weeru koor bi weeru koor bi jàll jëlal sa big rek nga xool lan nga ci def ci lu baax lan ñaata yoon nga ci jaamu yàlla wala def nga ci loo xamante ne nii safaan bala yàlla ne woon na bàyyi lii nga ni bàyyiwu ma nekk ci biir weeru koor du tee ngay def lu la neex ba ba ba jaaree fa am woor kese te yëgoo ko déedéet ku nekk na jël big ak fooy di bind lam doon def xool ba xam moom def ko comme Omar ibnul Xattaab chaque semaine da doon da doon audité boppam su bindi ah bakkan yaa def lii yaa def bàkkaar bi yaa def bàkkaar bi yaa def jël nag di dóor boppam di xamal bakkanam balaa nga may mbugal ma mbugal la kon kenn ku nekk ci ñun loolu war na nekk lan sa jikko te xam ni jikko jullit la chaque jour di auditer sa bopp waaye di contrôler sa bopp di xool ba xam yow yaa ngi topp yàlla ci lu bari wala lan sa bakkan bi ba xam yaa ngi koy topp ci loo xamante ni nii ëllëg dina la yóbbee loo xamante ni nii nekkul lu la neex waaye nekkul luy neex lan sa bakkan boobu ku nekk na def muhaasaba nafsi di xisaab lan di xisaab boppam maasa amila fiihi lan la jëf ci weeru koor bi paase wa ma mada taasiruhu ala al amali wa suluki ak lépp li nga xamante ne nii paase na nekk na jeexantal ci ay jëfam waaye ak ay jikkoom est-ce que jël nañu li nga xamante ne nii moom mooy sababu nangu yi après après weeru koor bi est-ce que jël est-ce que continué na moom loolu mu doon def ci lu baax waaye nekk ñoo xamante ni tamit est-ce que continué na tamit di def jëf ju baax al amalu saalih est-ce que moom jullit bu ne ne audité boppam xool ba xam man est-ce que nekkoon naa di def lu baax ci weeru koor bi waaye nga xam li fi nekk mooy ñun ñu bëri ci nit ñi contrôler loolu la ñuy def mooy képp ku doon jaamu yàlla arrêté nga ko. jigéen ñi doon julli wala nit ñi doon julli arrêté nañ ko ku doon woor waxatoo la ca jëm saraxe moom dootoo ko defat weer ba weer ngay saraxe léegi lu tax loolu nag weer bi rek lañ doon jaam jaamu wu ñu yàlla xanaa xamuñu yàlla mi bind weeru koor moo bind weer yépp kon nañ leen ragalaat yàlla te delloo suñu bopp ci yàlla subhanahu wa taala nañu xoolaat tamit kenn ku nekk est-ce que yaa ngi roy kenn ñi nga xamante ni ñoom ñooy salafu saaleh ñoom ñooy nekk lan ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ñu baax ñi nga xamante ni yàlla da leen a gërëmoon ñu jéem leen roy jéem a teg seen tànk fuñ ko tegoon parce que yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni alaykum bi sunnati wa sunnati xulafa ar-rashidin war na ci leen yéen ngeen jàpp sama sunna bi ak sunna xulafa ar-rashidin kon nañ roy salafu saalih loolu mooy dëgg ñan ñooy salafi saalih ñoo ñi nga xamante ni nii tawajjala qulubuhum ñoo xamante ni seen xol yi da doon jàkk seeni bakkan tamit dafa nekkoon loo xamante ni nii dafay jàkk lool lool lool indama yantahi ramadan xam nga ñun bu ramadan di jeex dañuy kontaan dañuy dem nekk ci marché yi jënd yére jënd dàll ñuy jënd kol ñuy jënd seeni greffage ñuy jënd lu kenn xam dañuy kontaan yii weer bi kay juróomi fan moo ci des weer bi yee weer bi kay jeex na mais ñoom salafu saale ñoom bu weer bi doon doon jeex ñoom dañuy dañuy am njàqare dañuy am li nga xamante ni moom mooy dañ doon seen xol yi da doon jàq lool seen bakkan yi jàq lool ne leen weer bi mu ngi jeex waaye lan la seen xol yi doon jàq lu tax kontaanuñu lan moo taxoon ñu doon jàq ci weeru koor buy jeex ndax lan li annahum yaxaafuuna an laa yuta an laa yutaqabbala minhum amaluhum allahu akbar naka ñoom dañoo nekkoon di ragal est-ce que yàlla nangul na leen seeni jëf ñun est-ce que kenn ci ñun sax yow bàyyi nga sa xel est-ce que woor bi ma doon woor yàlla nangul na ma ko wala nangul suñu sa yoon nekku si yow daal woor nga ko jeex na jeex na pare nga si ba pare ñu ne ñun salafu saalix la ñuy roy te duñu jàq benn yoon ni est-ce que ñun suñu jëf yooyu ñu doon def ah yàlla nangul ñu ko te ñoom dañ doon jàq ñoom salafu saalix ñi nga xamante ni ñoom yàlla da leen a gërëm te yow gërëmu gërëmaguñ la yow kon ku nekk na nga bàyyiwaat xel sa bopp bàyyiwaat xel sa bakkan ci loolu ñoom dañ doon nekk di bëri lu ñuy ñaan bu weeru koor gi di di dëdd di dem bu passé dañ doon bëri lu ñuy ñaan baada ramadan bu ramadan baada ramadan mooy bu ramadan jeexee tàkk comme jamono yu ñu toll nii sama ñoom dañ doon nekk lan di ñaan yàlla nangul leen li nga xamante nii moom lañ nekkoon di jaamu yàlla yàlla leen ko yàlla nangul kon du passé rek ñu bàyyi daal di ne passé nañ ko benn weer la woon rek jeex na jeex na ku nekk delluwaat ca la nga nekkoon déedéet xanaa kay dañ naan corona bi rek moo tax mais kon heure bi soirée yi baal yi ah lépp ubbi na lépp lépp ubbi na ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla teggil feebar bi mu teg suñu kaw ci lu gaaw a gaaw yàlla di wax si alquran wallazina yutuuna wallazina yutuuna maa aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raajiun sadaqallahu alazim wallazina ak képp ki nga xamante ne ni yutuuna dafay dikkee maa aataw wa qulubuhum te seeni xol wajilatun dafay jàq ñoom salfu saale dañuy def lan dañuy def lu baax ba pare nag seen xol yi di jàq iskalan iska yàlla dangu na ko annahum naka ñoom ilaa rabbihim ci seen borom raaji'uuna la ñuy dool la ñuy dellu ñoom dañuy def jëf ju baax ba pare après ñu jàq nag iska yàlla nangu na ko ñu ne Aïcha radiyallahu anha laaj na xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñan ñoo ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suila na Aïcha radiyallahu anha rasul sallallahu alayhi wa sallam an ahli hadihi al aya ahum allazina yaznuun Aïcha radiallahu anha laaj na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aaya bii ndax moom mooy ñi nga xamante ni dañuy njaaloo ñoom ñooy jàq seen boroom ne ne ne ne ñoom seen jëf duñ ko nangu wa yasriquuna wala mooy ñan ñooy nga xamante ni ñi sàcc lañu wa yashrabuuna alxamra wala ñi nga xamante ni ñoom dañuy naan sàngara ñen ñoo moom aaya bi yow mi yàlla yooni su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa déedéet yabnata siddiqi yow mii nga xamante ni yaay doomu Abubakar Siddiq nekk doomu ku dëgg gi waaye ñen ñoo ko moom mooy wala kinnahum waaye ñoom allazina mooy ñi nga xamante ni yu salluuna dañuy julli dañuy julli ñoom ñoo ko moom waaye suumuuna waaye dañuy woor waaye tasaddaquuna waaye dañuy saraxe waaye lan wa yaxaafuuna allaa yutaqabbala minhum waaye dañuy ragal yàlla bañ leen koo nangul ñooñu ñoom moom aaya bi kon ñun tamit nañuy jëf loo xamante ne nii bu ñu jëfee ba pare nañuy yaan yàlla mu nangul ñu suñuy jëf kon rawaahu ahmad wa tirmisi mbokk yi ñu ngi yem ak yéen fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen aljuma incha allah ñu ànd ak yéen ci daara jigéen ñi nekk émission boo xamante ni rajo Manoore FM moo leen koy defal aljuma bu ne ngeen ci ànd ak seen xarit seen Seyda Xawaali yal nañ yàlla may dégg ak topp def ko ci ñeen def ko ci ñun lépp loo leen fi dégg lu jub rek ci borom bi subhaanahu wa taala la jóge lépp lu ci dëng tamit ci suñu ñii la bàyyeekoo taalibe yi soog a jàng rek nekk ci nafar wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
yéen a ngi déglu Manor FM 89.4 fii ci centre Amadou Malick yi ex-Bopp.